jaajëf sama gars yi salaam jàmm ku mbedd ni ges baa ngi nuyoo yoo ku mëj bal waa déggu ka fay mi show booy ji ji ji di ter ékoy booy grand bi gënaa leen yéen ñëpp Galsen sama game la sur Equivox TV tey dama ñëwaat Reptile ginnaaw bi ma fi jógee temps yee det woon di si xaamee tey Kinizi laa seet Kinizi booy grand ñu fas yéene waxtaan ak moom naka la intégré biir Reptile waxtaan ak moom ci projet bu mu mujjee génnee mu nekk projet bu naaj dinañ si ñëw léegi-léegi mais avant loolu dama koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci biir waxtaan bi bànde du nuy képp ku ñu setaan ak fépp foo nekk mooy loolu maa ngi ñëpp ñëpp ñëpp woo waaye. yee euh, keneen pour ñu jublu si waxtaan bi naka nga def ba intégré biir reptile. yee sama intégration biir reptile sama benn copain au fait moom lañ doon jéem a dugal foofu pour mu mun a am dara muy Dope Boy après par la suite ci laa enregistré benn son après gars yi nangu xam nga après affaire yi noonu la ñëwee quoi suñu intégration sama intégration foofu noonu. xam nga après gars yi nangu dip di am sama benn son boo xam dafa doon cons daf koy gaañ affaire yooyu doonu yee noonu la demee. kon mun nañ ni si sa dugg ci biir Reptyle si Dope Boy la jógee. waaw mun nañ wax ni si moom la jógee parce que moom lañ doon jéem a intégré foofu pour mu gën a parce que xam nañ ne il talant talentueux dafa am talent. pourquoi pas ñu jege ñoo xam parce que affaire bi sama koñ la nekkoon soriwul sama côté gaale. pour pourquoi paa ñu dem man ak milk dem xool xam nga nuñ koy gere pour boobu ça va intégrer gisa lu yàlla di def après ci laa recordé benn son one day ma toog nii rek enregistré benn son dugal ko après gars yi nangu xam nga man defaat beneen son xam nga gars yi gën après affaire yi noonu la demee quoi. ah ok noonu la affaire yi demee mais man dama gis sa début critique yi dafa bëri woon son boo génnee gars yi dal sa kaw internet beeg yooyu noonu. waaw loolu la moom àdduna moom gayen noonu lay demee rek sagam ku tedd ki moom la ñëpp nangul waxtuma la ak ñun mindee fii nii cag-cag parce que si lépp loo nekk am na ñoo xam ne dinañ bëgg am na ñoo xam ne loolu mënul nekk ñëpp buñ la nangul la rek xoolaatal sa bopp baaxul quoi mais liggéey bi mooy indi critiques yi di gën a wàññeeku la fait gay ngay le fait que gars yi di critique sa comprendre que ñun ñu ngi si job bi di sëgg di job man calculé wu ma genre affaire boobu mais am naa sama objectif xam naa lu ma bëgg xam naa fu ma bëgg a jëm est-ce que comprendre ci loolu laay nekk di sëgg di liggéey na woowaat ñëpp wax dégguma ko sax. mais phrase boobu noonu gars yi dugalaloon la YouTube artiste bu gën a niil hip hop Galsen waa rap 21 221 su ma juumul ñoo ko dugaloon mais dañ dindi nañ ko wala dindiwuñ ko ñoom nangu nañ léegi wala nanguwuñu. ñoom bu ñu nangul seen baxalu xeer ñu uti ay bëñ ñu ko yéeyee déggoo loola mais man xolal dama dawul si lool loolu dégg lu ma la wax maa ngi sama wéy gëm naa li may def xam naa ne fu ma si bëgg a egg dinaa fa egg après le reste on s'en balek mais ñoom jot nañ la jël émission bi nga génnee projet bi ak léegi wala. Mm, non man li wax loolu loolu est-ce que bàyyi naa si xel sax bàyyi ba si xel mais peut-être naa ko gis nii vite fait mais mooy loolu quoi ku nekk ak sa gis-gis xam nga yow mun nga ñëw nga nit par exemple ma benn Jay-Z moo daax rab si àdduna. keneen ñëw sama wet na noo non looy wax nii gayeen xam nga ku nekk ak say waaw gis-gis quoi couleur yi ak goût yi ça se discute pas ku nekk ak sa feelings ñoom bu leen neexee ñu am gisgis boobu si man mais man mun naa am sama gis-gis boobu ni maa daaka rab si àdduna bi te noonu la demee yeah eh, ginnaaw tolof tolof yooyu noonu nga jaar critique yi métti yi la gars yi doon critiquer ñi doon critiquer retour yi après am na ñoo xam ne taxaw na nangu wala ba tey am na ñoo xam ne si. nangu kay bañ moo fi jar noo wax amul wax mooy jël bañ après boo bañoo nangu sax publiquement boo daajee sa nekk ñu constipé waaw. style bi ngay prôné <laughs> njool mi la waaw. loolu mooy waa def. mooy def sew sa cas quoi comme lu ñu naan bu fekkee ndaama nga ndaama boobu noonu mooy sa bu fekkee njool nga njool boobu mooy sa cas mais dafa am lu suy yokk ay business mais loolu das ma own shit samay affaire bopp la quoi te c'est naturel newul lu ma forcé wala benn affaire j'ai été toujours comme ça nii laa mos a mel free relax roubé xam nga ni ñu ma xam dinañ xam ne kii il est il est comme ça quoi mais soo ma xamul mën nga am beneen esprit man like yooyu. gis nañ jamono bi Kennedy Eh, musicalement nice lyricalement tamit taxaw da nga màgg quoi. da nga màgg da nga toogoon benn temps eh, di gëstu nu mu demee noonu. waa gis nga affaire yi moom ku nekk soo bëggee benn affaire même bu nga doon di football sax xamoo dara mais soo ko gëmee dina benn jour dina ñëw di nga mën quoi di nga xam dara nekk si benn affair ofet fait waroo faible comme lu gars yi naan il faut pas être un négro mooy négro boo xam ne da nga fragile quoi. est-ce que comprendre nga ak lu mu tar tar lu gaa yi di critiquer critiquer déggoo lu mu la sëgal stay focus on your goal nekkal si li nga nekk point job après résultat yi dina wax quoi après foofu noonu dinañ mën a waaw def la part des choses la fa demee. mais projet bi nga wujjee génnee deux point zéro lan la. deux point dix. point dix waaw. deux point dix mooy man laay wax en dama damay def sama éloge bopp. dafa sobal man deux point dix mooy deux mètre dix laay mesuré. mouvement bi yaa fi gën a njool de. dama leen di dënk normal <laughs> ma fi gën a njool loolu jarul wax deux mètre dix amul rapport bu fi toll deux mètre dix loolu moo tax ma sama projet deux dis parce que damay def sama éloge bopp soo dégloo projet bi dama la bëgg faire comprendre que lépp lu ngay dégg si projet bi man la quoi même soo ma xamul soo dégloo samay son di nga xam kii genre lan lay prôné quoi en fait lan moo nekk direction artistique am. loolu moo tax moo tuddee ko deux risques. retour projet bi après projet bi projet bi fan la la yóbbu. projet bi bu ma nekkoon si benn paa yokk naa yeneen paa si kanam indil na ma yeneen affaire projet bi tax na ma xam yeneen nit xam yeneen gars yoo xam ni foogu ma woon genre affaire bi dina yee est-ce que nga ba pare def na benn genre ci statistique ci statistique yi am na lu mu wane dafa génn benn une semaine nekk xaw ci top album les plus écoutés au Sénégal si Deezer top 100 loolu mine de rien dara la quoi est-ce que comprendre nga yee sant yàlla waaw. projet bi mu génnee ba léegi gis ñu yi teg benn affaire dina ñëwaat si projet bi di projet ba génnee ba léegi gis ñu teg nga teg dara muy sa site muy hors secteur lu waral loolu temps boobu. temps lu ko waral mooy business bi fu mu tombeel la corona bi xam moo taxaw moo taxawal lépp corona bi ak loo fi def corona da koy coop. est-ce que bi corona bi jàll. na mais ñu ngi xool léegi affaire yi step by step la xool yen place yu mool yi xam nga jàpp date yeeg affaire yooyu noonu yëpp ñu ngi si parce que ku def projet moom ah di nga teg show quoi loolu c'est la condition sine qua non mënul ñaar. léegi base bi Grand Yoff xanaa war na dëgër bi projet bi génnee. waaw base bi Grand Yoff nag parce que gars yi sama gars yu ko doon gérer fii mu xaar dafa seey mi ngi Maroc est-ce nga xam nga mais Babs. Babs war nga ko xam sax Babs Babacar mooy lool ñu ngi doon nekk si affaire yee de mais du ma ni dëgër na dëgër mais des na ko te dafa war a gën a war a mën a dëgër parce que genre ak lu bon bon doomu Grand Yoff la. mais est ce tamit yaa ngi koy dox. parce que boo toogee si ruq tamit seeti woo kenn gars yi jàpp si duñ si jàpp. waaw parce que dewul na ma toog sama coin di xaar gars yi jàpp si non man mosuma xaar kenn jàpp si est-ce si benn affaire laa nekk yaa ko gëm di ko xasaling nekk si di ko dóor di ko dóor ba tey xam nga am yenn nit yu si ñëw bëgg si jàpp nit yooyu bëgg si ñëw jàpp man maa doon dox di def ay tànk jeewoo xam nga di dem ñuy dugg di def ay réunion affaire yooyu mais après da ngay gis ne yow pas-pas bi nga si am sax xam lépp pas la pour man munoo nekk si benn affaire ba pare nit ki gën la bëgg affaire boobu nekk. loolu bu amee rek après day xaw a te fii esprit sénégalais gars yi ñu am xam nga pragmatique wu ñu quoi te man dama waaw man su ma nekkee si benn affaire dama siy taxaw ba mu jeex cag cag loolu ñëpp xam nañ ko si man vëf laay ref yaa ma gën a noonu duggaat ci biir ci biir projet bi. 2 <coughs> point projet bi def naa fi featuring yi nice euh, ñaata vidéo la projet bi am. projet bi instant bi ni war naa am ay 3 vidéo ah waaw. mooy bi nga def ak Samba ak. yóbbaale bi ak intro bi waaw. boobu 3 vidéo yooyu featuring yi naka la ñëwee. featuring ma xool naturellement ni la ñëwee ay bàcc dañuy xool xool benn affaire fil ko. ñu ne pourquoi pas ku nekk en fait di nga xam lan mooy lan mooy forum quoi wala ban fan nga koy yóbbu mu gën a nekk à l'aise wala affaire yooyu noonu ba pare lu si ëpp gars yi feelings la ñuy demee fii gars yi job bi fii feelings la quoi gars yi ñu ñëw xool benn affaire affaire bi nice ñu ni ëpp na ko dal. artistes or secteur yi gis gisuñu leen si dafa mel ni waa Reptile rek nga si taamu. non c'est pas une de waa Reptile laa si taamu sax mais. ñoom en ñoo fi nekkoon ba may job affaire bi ba pare c'était une première newul ma pour ñëw pour def benn affaire pour mais pare naa pour def ak featuring ak ñëpp ah. man awma limite. loolu xanaa léegi la. non man déggoo lu ma la wax xanaa aw ma ay problème mu ak lii wala lii wala lii man daal góor yàlla laa boo dund ak man yëfu góor yàlla ñu dund ko am boo dundul man yëfu góor yàlla yaa ma gën a noo ñu xam nuñ koy lijjante gis nañ nga def featuring ak Dip Doundou gis mais son bi boo koy déglu da ngay jàpp ni son wu la. sax nga jël featuring bi bàyyi dip tey couplet teg refrain ngay ngaako ngaakalu si son bi quoi sa mu nekk sa son. non demeewul gis nga loolu laa la affaire dafay ñëw naturellement parce que bit bi nu mu demee woon mooy bit bi dañ ma ko yónnee yónnee ko ko moom est-ce que nga fekk moom teg na si refrain ba pare est te bit bi dama ko filoon maa ngi si doon kii après dama ko génne karaat ne mooy pourtant sa waay affaire bit kii teg na si ki mu won ma ko quoi mu ne ko ah, kon loolu gaan mooy loolu featuring la. affaire moom moo si njëkkoon teg hook ba pare te hook bi dafa nice pourquoi pas ñu man awma comme genre ay pression wu ay son wu kii wala lu lii yaa ngi siy dégg sama voice rek marché bi tas na. mais sa featuring yaa ko invité. loolu laa lay wax war nañu xam ne war nañu nit ñuy déglu war nañu xam ne yaa waaw dama ne la déglu bu ñu ñàkk lay xam ne maa moom son bi mooy bu son bi nekkee si projet bi foofu rek bu la waxee wala ñu waxu la sa war nga xam ne kii moom moom son bi parce que si projet bi la nekk. xaw ma kinésique xaw ma histoire bi du mu demee bu may déglu son bi damay jàpp ni da nga focus si gan gi pour am visibilité. waaw moo tax may la boo wul doo xam est-ce que xam nga laaj nga ma daajal naa la nu mu demee loolu maanaam dafa ñëw naturellement newul loo xam ne dama ko forcer ku la ni man bëggoon naa sax def featuring ak moom si projet bi. xam nga loolu. loolu moom loolu moom gaa yi xamoon di nga ko def. non même pas en fait newul dafa ñëw comme nii loolu laa la dafa ñëw naturellement ni newul loo xam ni projet bu mu koy def a ma woon benn affaire ma ni nii noo takk damay ñëw ma def lii quoi est ce que comprendre nga dama doon def samay son di def samay son di xool son yu si est ce que comprendre nga. pourtant yéen yéen ñi dégg Reptyle yéen ñi di génnee son fitri ngeen di def ak Dip yéen def ak Dope Mind ak euh, Izo Das Mind ak Dope Boy ñooy dàq quoi. mais dafa mel ni yéen dib da ngeen koy utiliser pour. c'est pas une question de ay dib dañ koy utiliser pour lii wala déggoo lu ma la man góor yàlla laa new ma si loolu lijjantiwu ma genre business yooyu noonu sax ay comme ay lii wala man wéeru ma si kenn de. agama am ñaar yéen a bokk grand am nga si droit sax. non loolu laa la non c'est que soo waxee loolu day mel ni comme ça damay jéem a waaw yaa ma gën a xam. mais am nga si droit parce que moom moo la moom moo la ëpp ora. am nga droit focus si moom am na ñeneen ñu ko utiliser ba dem. loolu laa lay wax loolu. yow ñoom mun nañ ko jàppee utilisation mais man du ma ko use comme moo bu nga use utiliser parce que use ma ko sama frère la est-ce que comprendre nga moom mënoon na ñëw gis ma def benn affaire mu ñëw am si xam bëgg def benn participation bëgg si dugal kii loolu man mosuma wéeru si kenn wéeru ma si kenn agaama en way sama yoon laa nekk di ko waaw li ma si fekk si yoon bi nag ko koy use ah. sa projet gars yi waxuñu la son yi dañ juróog yooyu noonu quoi non man ñëpp xam nañu lu may def mun naa fële fu ne bitu indo sax boo fi tegoon léegi gars dañ koy lijjanti waaw. nga ni style bi ngay def noo ko tuddee. njool mi <laughs> mi léegi benn booy bu bëggoon ñëw style bëgg ko def. du <laughs> newul benn affaire bu ñuy forcer wala su ñun la nekk c'est inné am nga lu nga acquérir rek lu nga inné bokkul maanaam dañ ko juduwaale su ñun la ne. am na benn sound bu waa reptile def euh, fleur laa ko teg ki non waa yaakaar naa moom la non wala fleur laa ko teg sound boobu noonu yow sa dugg ci sa jàbbeeg yooyu doonu demee noonu booy mooy njool mi rek njool mi mooy ñëw ba léegi yow jëloo dara jour boobu non man su ma jëlul dara sa gars yi naan na ma jël dara waaw kon jëlul dara gars yi dañu naan dama jël dara may fël moo leen di yem pour ñoom soo xeneewul rek doo mun def. léegi moom yaa ngi commencé tàngal quoi léegi moom gars yi ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax yaa ngi fës ya li nga li nga waroon def bu yàgg nga commencé def léegi. waaw ah, loolu laa la gis nga nit ku nekk gis nga soo nekkee si benn affaire gëm ko rek ñun gëm nañ ni day leer leeragul sax lii. donc Izo daas moom gaan war ngeen génnee bagage yi quoi. Izo waaw war ngeen gën a fës quoi. <laughs> Izo mooy loolu sama jool bi sama frère jool bi. war ngeen gën a fës quoi. non eh, affaire yi force la boo nekkee si affaire yi gëm ko xam nga lan si laaj nga bañ a gëm-gëm boo yoree di jaay gerte caaf sax nga gëm ni da nga si tabax building da nga si tabax building est-ce que comprendre nga waaw ñun dañu buñ koy def nekkul ne ñun tam dañu ñëw rek egg si fi dañu jógee à ñëw si beneen point waaw mais ñun gëmoon nañ dinañ ñëw si point boobu noonu te leeragul li flash la rek ñun suñu game lu sax fii waaw. projet bi nominé nañ ko si Galsen Hip Hop si communication ko. si Galsen hip hop ñu ngi si saayfa yi tamit xam nga am na ay featuring xaw ma yu yu ma ci kii yu ma si nominé waaw mais naay sax pour man mooy loolu lépp. vidéo yi tamit bokkoo ci. vidéo yi non su ma juumul si trois catégories laa bokk waaw waaw. am nga yaakaar yanu benn. am yaakaar yanu lépp nga yaakaar yanu lépp man nee ma pour ay yanu benn de saay ñun dañu xam nga dañu am benn objectif bu ñu am loolu laa lay wax rek man sama objectif moom kenn du ma si tax ruube. si relation ak gars yi nekk biir reptile. nice sama relation ak gars yi nekk moo gën a suulee sax ak doo mënuma la expliquer parce que famille la quoi est-ce que comprendre newatul benn affaire ay rab moo ñu boole wala ay lii non newatul loolu en dehors de loolu quoi ñun ñu ngi si beneen game famille la quoi pour man kenn mënuñu taaxale ins bi nii kenn mënuñu xaajale loolu mënul nekk. parce que xam nga ku si nekk am na kenn ku nekk lu ngay dund ak moom si loo xam ne si taalibe maanaam waaw bu fa waroon demee nenn nii sax loolu boo ko si xoolee sax du demee nenn waaw mooy maanaam famille la quoi laa la bëgg a wax dañu suulee tellement yee. jamono bi looy waajal. maa waajal beneen EP cinq son maa waajal benn vidéo may waaj a génne tam mooy nekk extrait wu projet bi Nowa A waaw. Nowa A bi nga bëgg a jël gën koo làbbali quoi communication Nowa looy wa. waaw loolu la loolu lan la terme yooyu noonu féegewul. féege waa olof la nga ni féege loolu bokk si vocabulaire Kocc Barma mais mais mais man ak yow ay wax loolu vocabulaire olof la mais xam nga tey benn réel niggas bu mel ni man toog naan man ak yow ay wax. loolu laa lay wax xam nga réel niggas dañ koy xool si maanaam si business boo xam nga daaj ak moom si ngay a xam ne kii réel la wala du réel munoo tëm nga ne kii du réel te xamoo ko nga koy gis à travers gis booy jigéen ñi ñoo koy faral di utiliser bi ñu ko génnee ba léegi ko a fësal dañ koy man may góor yàlla dégool benn réel dëgg du fi toog naan noo waaw waay eh fii ñëpp dañ koy wax àdduna war nga kilifa yi sax ñu ngi koy wax waa moo xew gaan amul waa kañ lay génn loolu bu jotee rek maa ngi seen sa gars yi nekk si studio bi ñu ngi waajal ay événement Samba ngi waajal albumam eh, Dizzy Kha mi ngi waajal événement. waaw gars yi ku nekk sa event ak lépp lu si séntu yàlla na la ko sunu borom defal ba mu kawee sa njort xam nga di leen ci ñaanal xam nga réussite affaire yi jàll projet bàcc bi xam nga ñëw tasaare chaîne comme dab gars yow moom xam nga nu mu demee fii kër gi sa lépp geng day tàng. lu tax ngeen bëgg affaire de comédie ay album cinq million jàppal ba. comédie gëm nga gëm nga ni loolu dina kii. loolu ma ne comédie nga gis. <laughs> am na laaj ba xam comédie nga gis wala gisoo comédie. cinq millions koy jënd. cinq millions loolu laa la gis nga gëm-gëm la moom dafa gëm ne bu génnee album def ko cinq millions mindee fii dañ koy jënd waaw lépp tolluwaay la rek. yow mun nga ma ñëw ñuy waxaale nga ne ma lii ñaar nga koy jaay nga ne ma un million man la dërëm laa yor munoo si dara ku nekk ak yow boo yorul nga dem toog. loolu la quoi. EP bi 2021 parce que 2020 bi moom instant bi yaa ma gën a noom mat na. EP bi xanaa noo alay tudd. noo wax. comme lay tudd. waa wax amatul si kër gi. kese. looy tàggatoo. waaw maa ngi tàggatoo di la jaaraat di la bëggewaat bàyyi di bëgge ñëpp ñu doon setaan fépp si. àdduna bi di bëgg sama gars yi xam nga waa label beeg. yenn booy yi lay saaga xanaa mën kii bi. déggoo lu la duñ dégg tous ay xeer la lijjantiwu ma leen sax déggoo lu ma la maay nii. dafa bu nekk KBC bu la bëgg a tëggal saa man dépassé naa ay affaire yooyu noonu nag de man sama xamoo xamal xooma gars yi game bu ñu nekk xooma sax man new ma si yooyu defaat man sama business daa nekk stay focus on my goal point. Jaayof ñu ngi koy béggee bu baax a baax Kennedy la woon from Grand Yoff euh, moom lañ seeti woon biir Reptile Musique ginnaaw bi ñu jógee si di si xaar tey Kennedy lañ seet si bana yoon dinañ seet si waat keneen jaajëf jili der la woon béggee naa leen yéen ñëpp respect si ñëpp gaal seen sama game respect